يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وياتي ينك في تواون تواون المحروسة دي دكوزار الحاج مالك نك كي خمني موي كي فوند غام في السنغال تا ووتي كو appel boo xam ne àdduna yëpp tey ñu ngi ci wuy si d'abord Cheikh El Hadj Malick buñ delloo à travers ay écrits célébré na juddu yeneen bi ay at waaye recommandé na pour ñëpp ànd ak moom pour ñu célébrer ko moo waral ca xasidaam ba nga dégg muy wax ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udul loolu yàlla dogal bi mu ko dee célébré ba ren nekk téeméeri at ak euh, lu topp ci continuité boobu ci la daairatul mustarshidin wala mustarshidat def benn apport bu am solo ci gàmmu ci njiital suñu maam Seyyid Cheikh Ahmed Tijani Sy depuis 1998 muy célébré gàmmu fii ci Sande yàlla dogal mu commencé woon ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay maamam commencé ca Muhammadu Nuur Abdillahi Cheybata Hashimin wa Abdu Manafim ma Xusayihimi di ko célébré ci maami yonent bi kenn par kenn waaye itam ñu gis ni daayiratul mustarshidin wal mustarshidat def na benn révolution bu am solo ci wàllu gàmm mana dafa jële gàmmu ci cadre way rek ak animation mu jeex waye Serigne Cheikh daan ñëw di dispenser ay discours yo xamni khitabul alami la mana discours bu universel xamni monde tout entier lay waxal gis nañ fi façon discours bu nek amna ané bo xamni ci damirul kaw la waxtaan ba fajar te mooy euh, yeneen bi nekk gi mu nekk conscience universelle gis nañ yeneen i gàmm yoo xam ne itam ay maam yonent bi la doon jël ba yàlla dogal ci continuité boobu ci la Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha assuré continuité boobu di toog ci 16 bi nga xam ne ci la Serigne Cheikh di wax ci xaqaayiq yi di dugg ci yonent bi ak dimension yi daje ci mom yaakaar naa nag loolu la célébrer tay ni ñu nekk fi ci centre de course di xaar suñu responsable moral a Cheikh Seydi mohammed El mustafa xamna na à bientôt lañ ko gis ñi ngi gis gan ñi ngi installé wu kenn par kenn ak autorité yi autorité politique yi autorité religieuse yi ba ci chef coutumier yi yëpp actuellement ñi ngi installé wu toute la presse ñi ngi fi maa ngi seen ñoom oustaz Alioune Sall ak ñoom euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci presse en ligne bi presse écrite bi ba ci rajo yi ñi ngi gis aussi itam délégation yu jógee ci kër religieux yi suñu mbokk waa Touba ñi ngi fi waa Ndiassane ñi ngi fi waa Layeen ñi ngi fi jamaatul islamiya yi aussi itam ñoom ñëpp ñi ngi fi mu mel ni bés la boo xam ni bu ama am solo la ci taarix waaye barab biñ koy defee itam barab la boo xam ni mën naa ni mooy markasul fuhumi wal maani parce que nag gàmmu dëgg la bare na waaye gàmmu champ de course moom dafa am particularité parce que discours bi nga fiy dégg dafay spécial monde bi yëpp ku ne da ngay gis sa bopp ci biir discours bi kon nag loolu lañuy xaar nii pour célébrer ko bu ñu dee dellu si ci solo gàmmu bokkoon na ci philosophie bi tax Cheikh Al Hadj Malick recommandé woon pour ñu di ko célébrer mooy fursa la pour ñu mën a tasaare te alimi rasul sallallahu alayhi xamni tay monde bi ñu nek actuellement di ci dund soxlawaat na jikko yeneen bi monde bi ñuy don bi ñuy dund soxlawaat na enseignement yeneen bi kon il faut ñu dem aux sources des enseignements de Seydina mohammed waye nak ci école seexal Hajj malik Sy كن نقل له بأن فرصة ذهبية التي ترتاح بها قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كن نك نيجي كن تنتبه أبو بن خمني مملنيو préparel mu nekk biatun saafiyatun ruuxiyatun ilmiya maanaam environnement bu sain environnement spirituel environnement bu scientifique environnement bu culturel di ñaan rek yàlla may ñu muur loo ci barke borom guddi gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi